di jot am solo yi bàyyi koo fii ci HDP religion da ngay bés fii ñu wax sabone boo noppee ñu teg ci kolos bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ak mbokki taalibe yi maa ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di dikk ci turu comité de pilotage bi nga xamante ne seen bi ñu liggéeyloo ci bisu xaside bii nga xamante ne ba bis bu màgg dëgmal ci sunu kanam incha allah alxames jii di ñëw wara a ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru tabaski bi war a dëppoo itam ak fukki fan ñett ci weeru juillet deux mille ah, suñu kàddu nag yi ñuy jottali ñu ngi ci tàmbalee yeesal sunu ñaan ak sunu ziar ak sunu njëbbal ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha ñaan suñu borom bàyyi ko fi ñu mu nisar te yéene ko dongo yi. te ku ne xam na ne lu tumuranke la loo xamante ne moom fàggul nañu ko ngir suñu tay jag ak suñu ëllëg jag suñu boroom defal ko ci lu kawe njortam di ziar njabootu sëñ Tuubaa gépp gi nga xam ne dañoo takkatoo ànd ak moom àndin woo xamante ne ah, lu mu song mu daanu loolu bàyyiwuma kenn di nuyu tamit sëñ moom Mamadou Bachir mi nga xam ne moo yor kàddu sëriñ bi te it liggéey bii mu ànd ci ñun jiite ñu ci taxaw ci taxawaay bu rafet ginnaaw loolu nag euh, waar wii nga xam ne mooy euh, xaside yi may yeesalaat di li euh, sama kilifa bokk ci toolu xaside yi di ko ziar muy xam Xamsatu Mbàkke moom sëñ Suwayb ginnaaw loolu kat yi nga xam ne maa ngi koy jottali ci turu comité bii nga xamante ne sëriñ bi ñu ciy liggéeyloo dafa jëm rek ci wàllu bernde yi bernde yi ci bis bu mel nii muy bisu xasida yi daf ci am loo xam ne day baax ñëpp ñu xam ko ngir liggéey bu mel nii saa bu dikkatee it ñu xam ne lii mooy nosu gi lay tëddee ndax xasida yi moo indi bernde yi fonkeelu xasida yi moo indi bernde yi te fonkeel boobu dafa war a àgg ci pisteef ci ñun foo xamante ne buñ ci jëfoon loo xamante ne day ëpp mbooloo mi ñëw bu ëpp leen ëpp goo xamante ne dañ koy jal wala euh, di di di di di wetti loolu sax bu doon am mën ñoo xam ne jotuñu ak xasida yi su nit itam dikkoon njàngum xasida mi indi ko mu xëy suba ba jant soo mu mel ni ber bernde yi ak teraanga yi agsiwut ci moom it loolu dafa war a woyof toy ci moom ndax lan suñu xel dafa war a dem ci ki bind xasida yi te mu wóor ñu ne duñ jot akam te fa mu ko doon bindé fa mu ko doon bindé ghariban la dal ahdaina wet ci digg noni te musta salit kon fonkel googu buñ ci waxtane day bax del ci wat ci nan lañu wara nosé berne yi gis na ñu euh di sos ay wañ te at yi ñu genn ni ñu liggéey nok ñom ñun xam nañ ne wañ bo xam ne jël nañu nak jox la wala ñu indi dara jox la ko dolli nga ca loo xam ne mën na ko ñaar ba ñett kon fonkeel gi am na li ci des nag ginnaaw mënee su cee def lu ëpp te mënee su cee def lu ñu xeeb kon li ci am solo kenn ku ci ne na sellal la muy def def ko ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa loolu moo ci am solo waaye jëmmi dayoo bi ak nu muy toll foo ko yamale rek la ca des mottalee ko sa yéene te xam ne Sëriñ Tuubaa kenn mënut a jot àqam euh, loolu itam may wax ne Hizbut Tarqiyyah taxawaayam ci bis bi mooy xam nañ ne sëriñ bi dinañu toggaloo am na ñeneen ñoo xam ne sëriñ bi yàgg na leen toggaloo ci ay bis yu mel nii yu mel ni wilaaya sëñ bi daan na am na sëñ daam surang sëñ daan leen togg am na njaboot tamit ñoo xam ne daan na leen toggaloo ak ñeneen ak kon ñun euh, sëriñ bi naka jekk dinañu toggaloo ci bis bi loo xam ne la mu ca bëgg dinañ ko ci def waaye li nga xam ne it mooy organiser gim ñu organiser loo nos la waaye firiwul ne Hizbut Tarqiyyah dafa yittewoo nit ku yor nag ne naa ko yóbbu Hizbut Tarqiyyah nit ku yor loo bëgg a barkeelu ci bis bi ne naa ko yóbbu Hizbut Tarqiyyah loolu li tax ma koy leeral mooy soo ko toggee man ñun de moo nu gënal boo yoree nag war ko indi fii nga fàggu lu koy togg toggaloo ko sa njaboot toggaloo ko ñi la jege mooy li ñu gënal su la loolu tëyee it mënu ko nga xool fii la gën a jege te mu wóor ne fii ñu ngi ko fay dundal ci njàngum xasida loolu boo ko fa yóbboo ñu mën ko fa euh, yaatal mu jëm ci mbooloo mi loolu moom nga indi ko fii ci Hizbut ñu ko sëñ bi di taxawloo mooyam ndax tey jii kër njabootu sëñ gi nga xam ne ñoo jumaa ji fu ci ne na fa te njaboot ga fa ne takkatoo nañu noo xam ne yor boo xamante ne seen alal dañ koy def ci bis bi kon ku ñëw buntu kër sëñ daal di fay sama nag wii dama ko fi dama ko fi indi ngir mu jàpp ci togg yi loolu na la wóor ne ñooy waxal du fa jafe ndax kër ga di nga fa fekk ay nit boo ko defee kër sëñ Fallou kazaalika na ko noonu boo ko defee mboolem kër yi wër jumaa ji kër sëñ Abdou Khadre kër sëñ Saliou fu ci ne di nga am ñoo waxal te dina tàbbi ci bis bi loolu it liñ ci jublu ci di ko leeral ni mooy Hizbut Tarqiyyah dañ koo taxawuloo ab liggéey boo xam ne moom laxasaay la ci yoon waaye jiitewul jiite goo xam ne dafa yittewu mel ni ak pal wala mel di dajale di séddale booy dajale di séddale da ngay dajale loo attan bésub Serigne Touba bu mel ni bésub xasida doonul loo xam ne xaj na ci barab murit yépp kenn ku ci ne da nga cay taxaw la ci sa wàll loolu mooy liggéey boo xam ne bu ko xoolee lépp daal di rafet ah, ci biir loolu nag moo tax may xamle ne ah, loolu yàgg naa am waaye dañ ko bëgg a feddaliwaat rek ngir ñu gën koo nos mu gën a tege ci yoon ndax boo demee ci euh, daaru minam sëñ Cheikh moom sëñ Abdou Hakim ni mu taxawee ñun xam nañ ndax nee na euh, fii moom incha allah ginnaaw ñun lañu ñu féetale waa ahlu min ahlu minan la ñu féetale penc ñu fi jàng ñoom ñooy war a dalal waa Njaaréem ñooy dalal ñooy war a dalal waa Kaolack ñooy war a dalal waa Bambey ak waa Fatick waaye nee na lu ñu fay togg mu jëm ci mbooloo bi allah ñoom dinañ ko taxaw taxawaay boobu rek lañ bëgg ñu xam ne wàccul ku yàlla bind ndax sëñ Tuubaa ñëpp ko war a liggéeyal kenn ku ci ne kem sa kattan la nga cay def la ca des ndax yàlla suñu borom boo yéenee mu tàmbalee fay <clears throat> boo jëfee nag mu ful ko kon kooku neex naa jëflanteel loolu kon laa ci doon dolli ku mel ni sëñ Xamsatu it dama bëgg dellu siwaat ci wax ne dafay wane aw yoon ndax bëgg-bëggu sëriñ bi rek lay xencu te ci la taxaw moom day sakk ay waañ yu bëri bëri bëri yoo xam ne day togg loolu mooy noppal ñëpp mooy noppal ñëpp bu boobaa ñun suñu liggéey euh, ànd ak njabootam ànd ak ñeneen ñi nga xam ne ñëpp ñoo bokk liggéey bi mooy waa Muxaddamatul Xidma waa Rawdu Rayahin waa waa ci kanam waa wilaaya ñépp rek dañuy bokk xam ne fu ñu nekk rek séddale mooy liggéey bi waaw mooy doon liggéey bi te defee ko defin wu sell lii daal laa ne woon naa ko euh, leeral jigéen ñi seen soññi am na ndax soxna maam xar doomi sëñ Moutala moom woote na nee na euh, togg yi muy togg sëñ Moutala kër ga buntu kër ga ak li ko wër dina def ba fu mu mën a yem te lépp lu ci war moo koy fàggu loolu taxawaay boobu moom la soxna maam Issa lu café di def taxawaay boobu soxna astu Astou moom moom si Abdoulaye borom dën moom lay def ak ñeneen ak ñeneen waaw limaale wu ma nag ki nga xam ne suñu wayjur la di koo xam ne togg moom ku ne da ko ci xam mu ñu soxna Bally loolu dafa doon loo xam ne naka jekk ñi tey sëriñ bi moom fu mu taxawee taxaw na doon Baay Faalam di ci liggéey liggéey boo xam ne ku ne war na cee mën a kon lii daal mooy loo xam ne dama bëggoon ñu xam ko ci mu yombalaat ñu liggéey bi bis bi nag amul fu mu yem ndax daaw kuréelu xasida yi ñu sëriñ bi di liggéeyloo ñetti téeméeri kuréel ak fanweer ak ñeent daje nañ fi di jàng kenn ku ci ne xasida yi ñu la tànnal nga koy jàng daanaka wuute ak sa morom loolu it dañ koo nos ba nga xam ne mel na ni xasida yi buñ doon lim tey jii yi nga xam ne moom lañ fi jàng lépp yëkkati ko ca kaw yu bajjilu kulli kul yi ma maaxadin wa insha rabbi laa urada razawani feeñ na ci loolu kon mooy liggéey bi di santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp di feddaliwaat sunu laxasaay di wax ne bu kenn jàpp ne ah dañ laa wax ne jël sa alal ñëw indi ko ci bis bi nangul ñu la ko déedéet waaye dañoo bëgg fi la gën a jege nga bañ koo jéggi bu dee ñu ngi fay dundal bis bi waaye fii ci daara Hizbut Tarqiyyah ñun lu fi ñëw itam dinañ ko booleek li ñuy def incha allah ndax bu doon lu sëñ bi mës a amle rek ay soldat la ñoo xamante ne ñoom murit yi dañu fas yéene rek di sóobu ci liggéey boobu lu sëriñ bi wax ñu def ci li mën ak lu ñu mënul lu fi waaye indi dinañ ko booleeg li ñu yor yóbbu ko ci mboola mi waaye nag ñu xam ne rek li ñu gënal mooy ñu xam ne am na kilifa yoo xam ne penc yi ñu yor sax waxuma la jumaa ji nee nañ dinañ ko fa dundal te lu ca war dinañ ko def waaw sëñ Omar Bousso ci gédé gii wax nañu ko waaw te ñaxam ciy def dajale njabootam teg leen ci yoon woowu kon loolu penc yëpp mën nañ koo roy ndax li wooteeb sëñ Muntaxa bi amul ku mu wàcc ñëpp mën nañ koo def te bu ñu maasee def ko nag dinañ xam ne sëñ Tuubaa moom